Elacı Ahmet Eyla. Bismillah. ba day ah jeex na le soleil yéene kay ne alhamdulilah ma ne leen waaye day waaw nañ koy yóbbu nag ba ci ñaar fukki junni laa la wax day fii ak 2020 loolay dëgg le quotidien yéene kay ne année blanche bi nga xam ne doon na fëgg nag ci buntu école bi la day waaw ma ne le day diggee rek def dafa diggee rek lépp kon daal sotti Ali Baba Koumanaar Sall ngaari lam te diggee Sall yoo yee moom président waaw mooy daal di jëlee francs ca janvier 2020 l'observateur ne Mon président Macky quitté. day abi nga xam ne day da doon naaj laa lay wax ni la day daal dina koy ma ne la waa G6 ah. grève bi nga xam ne premier ministre bi tey ji ci suba day lay daal di yeggali ne kon yéene ba yéene kaay ma jaman ne étape par étape octobre bii di ñëw day danañ leen jox ci seenu ndàmpaay janvier 2019 ñaari janvier 2020 ñetti junni mu président Macky Sall la mu jàngalekat yi leen ma ma am seeni bëgg-bëgg kon ma saafara ko waaw waaw xam ngeen ni day février mooy élection présidentielle ya terminé yéene kaa école ba day tëdalee nañ kook année balance kon jàngalekat yi gàddu kon CREI gaaw ginnaaw ISRA ne ma récréation waaw daal dinañuy delluwaat nag kon ca classe yi waa g waaw daal dinañuy dakal nag gerew bi kon foofee la ñu ne kon waaye waa FEDER ak intercadre ah, nañu jàngalekat yi nga bi day ay traître lañ marti tali la ilaha kon la def jalal dàmbooj waaw nee na dakal bi nga xam ne kon waa G6 daal dinañ koy dakal gannaaw bi day gars war nañ de trahir nañ de li ñu def teguñu ko fenn laa la wax forfaiture la ak trahison parce que ci boppam kon yónni wuñ leen jàngalekat yaa ngi ci week-end ba tax na ñin nag dañuy xaar kon ba altine tey ji lee ci assemblée générale yi nga xam ne ne danañu ko amal kon ci biir dëkk bi yëpp daal di waxee nag ba xam fan la ñu tribune yéene kaay ne waa lan moo tax sax ba gouvernement bi day xaar ba tey ji lee mbir daal xam naa ne jate waaw muy doog a signé te ñoom ñooñee ñoo ko signé woon kon bu yàgg a yàgg ca 2014 nag laa la wax wal fajiri ne en tout cas Macky Sall day mujj naa su ko de d'accord na de laa sax su quotidien ne Macky Sall daal xam naa ne nag sobe kon année ba ba sobi ne a bomb kay moo doon waa jëkkalaate Macky Sall kon daal di fay nag kon bomb ba moom a Sall UDN ci boppam kon di Abdourahmane moo ko wax nee na la Marième Faye Sall nekkul ne moom rek moo ci dox ay tànku jàmm day waaye lam ca def ah, rëy na lool ki remplacé Awa Wade nee ma Abdourahmane nee na ci guddi kon ba 10h ci guddi ña nga ca kër président waxtaan nañu ba daal di ñuy jubóo na kon ci kaddu libération yi ne kay en tout cas samedi bi day a waxtaan yi yàggoon na lool maa la ko añ laa wax nii ba reer ca kër président lañ ko defee Marème Faye nag en tant que soxna borom kër ga taxaw taxawaay première dame parce que coow la nag moo bëri ca biir Marème Faye def lii Marème daal libération yi ne kay ne laa lay de première dame bi laa lay wucca de am na sax benn syndicaliste boo xam ne ba mu di wax bi bëri na ay problème de Mamadou Diouf waaw nee na li ñu a defar ci boppam kon moo bëri APR tam li ñu a defar bëri na réew mi quotidien ne problème yi nga xam ne kon moo am ca APR day waaw Moustapha Cissé Lo sampal nañ dënd kon Macky Sall de tribune yéene kaay ne de problème yi am APR kay Moustapha Cissé Lo Macky Sall ci boppam kon la jëmbaaraamu tuuma laa la wax nee na problème yëpp Macky Sall la Moustapha Cissé Lo ne na ma ma dekk sama ma ma dàqee ngeen enregistré ko soo leen déggee ne delluwaat naa ca Macky Sall day xanaa man ko nekkatuma ko bàyyi politique boobu ma gënal ma delluwaat ca Macky Sall laa la wax Cheikh Alassane Sène ci tribune yéen kaay nee na gis nga Macky Sall mi sax boo bëggee dégg dëgg waaw saay bu ñu xëy day gën di wàcc rek day gën di daanu Macky Sall dama ne mën nañ koo gañe ay dóor yu mitee miti sax parce que moom Macky Sall ci boppam xam na ne fa ko sénégalais tegoon ak léegi bokkatul il est nit ñi bëggatuñ ko Cheikh Alassane Sène yamu ca ndaxte nee na xam nga Macky Sall bu naan la avant le parti réew mi ci boppam kon moo ma gënal parti bi lée réew may farata parti bi doog a dikk loolee ay bàkk la du dëgg amul Macky Sall nga xam ne léppam boo bëggee dégg dëgg fameem la njabootam ñi far ci moom di kalaam ay xaritam parti bi réew mi ci boppam doog a dikk la ko ti kaay ne xoolal ma démb tey Bamba Ndiaye day ma nekkoon te Alaaji Malick yi ndaxte Bamba Ndiaye nee na Macky Sall day ku bëgg réewam la ku am yéene ci Sénégal la moo tax ma dem ànd ak moom libération yéene kaay ne kii ñàkk jom neexul ba neexul mais gis nga Bamba Ndiaye mii ah du dara wallaay kii ñàkk jom kii amul sax rasul laa la wax Bamba Ndiaye mii ak lim ci yekk Macky Sall xas ko ba maara day taali kookoo transhumé tey te bi ko Macky Sall di recevoir kat ci teewaayu benn responsable la kii non transhumance li Souleymane Ndéné Ndiaye waxoon rek ku ko def dañ a la guy gi day ca démb laa la wax laas de guy gi kay daan na cité ba pare defaan nag son grand retour guy gi dellu si waat de maa la ko wax <laughs> alaaji man suñu yenn politiciens yii man xaw ma sax lan laa war a wax daal seeni doom ak seeni jabar rek man laa yërëm boo pare ma ne la alaaji tëjal Samsung ak seen téléphone grand